Euh, Moustapha Diop dañ lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax euh, par Makhtar di nuyu euh, Georges Cheikh ak Oustaz. Mhm. mais également sénégalais yi ñuy déglu yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mhm. Moustapha ci yow laay das parce que am na information confirmé nañ ko sax léegi comme quoi dañ la convoqué déjà est-ce que mën nga dellu si ci anam buñ la convoqué dañ la woo convoqué la dañ la nan nañ la convoqué et aussi est-ce que wax nañ la lan mooy motifu convocation boobu. Euh, écoutez man euh, daanaka mën naa ne xaw ma ci lu bare. Mhm. xaw ma ci lu bare mooy euh, fi ma toog di def sama live may def comme tous les mardis. Mhm. fi la ma Cheikh fekk ne ma am na ay alkaati yu nekk ci kaw di la di ñëw pour remettre la une convocation. Mhm. pour nga wuy ji commissariat central jeudi 27 à 11h. effectivement bi ma paree sama live ma yéeg ci kaw fekk leen direction général muy ñaari alkaati ñu yëkkati convocation jox ma ko. Euh, ne ma naa wuy ji commissariat central bu alxamese ci 11h. Mhm. loolu laa ci am aw ma ci loolu. Mhm. waaw. Mhm. njoxtoo dara aussi. non euh, njort ñàkk a njort amu ci parce que liñ ci bind mooy euh, c'est convocation motif délégation judiciaire relative à l'affaire Pape Ndiaye donc puisque c'est relatif à l'affaire Pape Ndiaye loolu rek laa ci mën a jàpp donc mais xaw ma ci beneen beneen détail d'accord